حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله نبينا محمد ومن والاه mbokki jullit yi diine ji nga xam ne mooy diine lislaam diine la joo xam ne ay ponk da koo téye ponk yoo xam ne amu ci benn bu ci mën a sempeeku ndax sunu borom yàlla mooy ki ko samp ponk yooyu bokk na ca ginnaaw ñaari baati seede yi julli julli ci jaamu yàlla yi gën a màgg ci la bokk julli li mu am ci ay meññant yoo xam ne jaam bi koy def da koy jariñoo fii ci àddina balaa àllaaxira yàlla rekk xam na mu toll julli yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na ak leer la assalaatu nuur noonu la ko waxee moom alayhi salaatu wasalaam yi ko jiitu yépp boo ko xoolee ci lislaam luy joxe ak leer la tàmbulee ko ci njàpp ma noona teewlu ga nga xam ne moom ngay teewlu ci kanam sa borom subhaanahu wa taala lépp day bijjal sa xol bi ak leer ñi nga xam ne dañoo mën a setantal sax dañuy wax ne ponki lislaam yépp dañ koo xaw a dajale ci biir julli ndax boo jëlee ñaari baati seede yi muy laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam loolu nan la feeñe ci julli gi bu dee ne laa ilaha illa allah li muy tekki mooy amul benn buur boo xam ne yoon na ak jaamu ku may yàlla te julli di jaamu te yow miy julli julliloo ku ma yàlla kon laa ilaha illallah feeñ na ci julli gi bu dee muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mooy muhammad day ndawul yàlla la te yow jullit bi ni ngay jullee mooy na muhammad alayhi salaatu wa salaam daan jullee kon yaa ngay feeñal risalatu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam ci julli gi ndax julli woo sa julli bopp julli woone damaa gis doomu aadama yi julli may julli waaye dangaa royee sa julli ci alayhi salaatu wasalaam ndax gëm goo xam ne gëm goo gëm ne mooy ndawul yàlla li nga xam ne moo nekk ci biir woor te mooy téye bànneex not bànneex ba du tàbbi ci biir du tàbbi itam ci am pëy diirub li nga nekk ci biir julli gi mën nañoo wax ne maanaam moo ma feeñ ci biir julli gi doo lekk doo naan ci biir julli gi lekk ak naan day yàq julli noonu itam yaa ngi janloo ak kaaba ga te bu yàlla dogaloon nga am li nga xam ne mooy alal ba war a aji itam la gën a rëy ca looy defi foofe mooy wër néegu suñu borom yàlla boobee te yaa ngi janloo ak moom ci biir julli gi maanaam mi nga xam ne moom la azaka yor itam te mooy tutahhiruhum wa tuzakkihim biha mooy laabal ab jullit ak sellal ab jullit loola julli da koy def ci ab jullit moo tax mu mat a fonk mat a bàyyi xel rawatina muy jaamu yàlla goo xam ne moom la ñuy njëkk a lijjanti diggante jaam bi ak boroomam subhaanahu wa taala su ëllëgee yowmal qiyaama jaamu yàlla yi jaam bi daan def woora nga ca joxe azaka ma nga ca dem màkkaa nga ca waaye la ñuy njëkk a lijjanti digganteem ak boroomam mooy ak julleem su julli ga baaxee alhamdulillah waaye bu julli ga baaxut yeneen jaamu yàlla yépp dara du ca baax buñ xoolee julli di ko seetnatal di ci bàyyi xel dañuy gis ne màgg gu màgg moo tax jullit bi ci bis bi dana ko def juróomi yoon julli gu ci nekk ak la mu am ci ay rakka julli suba ma nga ak ñaari rakka ñu jàng ca njàng moo xam ne njàng mu yàgg la njàng mu gudd la jullik tusbaar ma nga ak ñeenti rakka jullik tàkkusaan ma nga ak ñeenti rakka jullik timis ma nga ak ñetti rakka julli gee mi ngi ñeenti rakka te loolu mooy julli farata yi waxuma sax yeneen julli yi nga xam ne dañ koy jiitu nga xam day mel ne dañ koy làkkal mu nekk ci digg bi am gu ko féete ginnaaw am gu ko féete kanam nga xam ne moom kenn du ko laal bu ñëwee ci arrawaatib loolu lañ fay fekk julli moom yi mbokki julli yi sunu borom yàlla yitte jim ko jox moo tax jibril ñëwul fekk yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci kaw suuf naan ko yàlla nee na nangam jibril ci boppam dafa ànd ak alayhi salaatu wasalaam yonte yàlla muhammad wuy ji boroomam subhaanahu wa taala daa wuy ji boroomam subhaanahu wa taala yàlla jël julli joxol ko ko boppam du jibril moo jox yonte yàlla muhammad julli déedéet yàlla moo joxal yonte yàlla muhammad boppam julli mën nañoo wax ne julli rëy gu mu rëy tax na juróom fukki julli la woon juróom fukki julli la woon sallaahu juróom fukki julli day su doon ne noona la ñëwee yaakaar naa ne li muy jël ci sunu dund gi dana bari lool waaye alayhi salaatu wasalaam bi muy wàññeeku la dajeeg Muusa alayhi salaatu wasalaam mu sàkku ci moom mu dem ci boroomam dellu ci boroomam mu wàññil ko lii nga xam ne moom la ñu farataal ci aw xeetam ñu di ko wàññilu di ko wàññilu ba mu des juróomi julli yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom la mujje dénkaane xam ngeen ne kuy waaj a génn àddina daa bokk ci li ëpp solo mooy la la gën a itteel ñu mujj koo dégg ci saw làmmiñ sallallahu alayhi wa sallam bi mu nekkee ci tawat ji nga xamee ne ca la génne àddina bokk na ca la mujj a wax mooy assalaa assalaa wa maa malakat aymaanukum julli bàyyi leen xel ci julli fonk leen julli am na ca sax diggante boo xam ne daa jug bërbëri seen saxaaba yi ci biir jàkka ji ñu sàppe sàppe su jug mu daal di muuñ alayhi salaatu salaam saxaaba yi keroog ci julli googu bég nañ ba jàpp ne alayhi salaatu salaam dafa wér ànd ak li muy tawat tawat teewut dañ ko daan lëng di ko indi muy taxawe julli mbokki julli di jaamu yàlla gii di julli lu mat di fàttali la yonente yi nga xam ne ñoo fi jiitu woon yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañ ko daan tax dañ ko daan taxawe yonente yi dañ ko daan taxawe suñu borom yàlla nee na yonente yàlla Muusa wa aqimi salaata li dhikri na nga taxawal julli ngir fàttaliku ma ci biir julli gi daa mel ne kon julli day fàttali jaam bi boroomam subhaanahu wa taala daa bokk ci li tax a jóg julli mooy dox digganteem ak fàtte yàlla ndax àddina ni mu bindoo ci taar bi ni mu bindoo ci fitna ji ak yëngu bi ñu jekk ba yàgg rek ñu yëkkati kàddug yàlla allahu akbar yàlla rek a màgg njaay mi màggatut yàlla rek a màgg liggéey bi màggatut su dee ab jullit nga te dégg baat boobu la nga doon def lépp da nga koy bàyyi sallaahu day yaa ngi dund ci jamono joo xam ne allahu akbar bu doon ne jenn jàkkaa koy wax waaye lu mat fukki jàkka da nga ko cay déggandoo te du la yàqal sab liggéey da ngay wéy ci sab liggéey nga xam ne julli rëyatul daanaka ci xoli ñu bëree bëree bëri sunu borom subhaanahu wa taala bokk na ci ñaani ibrahima yi mu indi ci alquran ibrahima ne rabbi jaalni muqima salaa wa min durriyati yàlla maa ngi lay ñaan nga boole ma ci ñi mën a taxawal julli waxut may julli de dane ko maa ngi lay ñaan nga bokk nga boole ma ci ñi mën a taxawal julli ak sama njaboot isa alayhi salaatu wasalaam moom naka mu ñëw àddina rek bokk na ca lam wax man day jaamu bi yàlla laa bu sunu borom yàlla jox ab téeréem def ma ma di ab yonanteem waaye daf ma dénk julli wa awsaani bi salaati wa zaka sunu borom yàlla ismaila ba mu koy tagg dane ismaila day waxuma la moom muy julli waaye njabootam da leen daan taxawu ñu julli da leen ko daan digal loolu lu neex yàlla la ngay digal sa waa kër julli leen wa kaana yaamuru ahlahu bi salaa ñu ëpp ci nun tey jii ba ñuy jugee ca seeni kër amuñu sax soxla ci seeni doom ndax na ndax ndax ña ngay julli wala seeni soxna ñoom daal bu julli jotee ñu ñëw ca jàkka julli bu ñëwee itam waññee ko duñu lijjanti ba xam Samba julli na wala Demba julli na wala Penda julli na wala Xadija julli na seen yéen nekkul ci loolu yàlla nag ba muy tagg Ismaila da ne wa kaana yaamuru ahlahu bi salaa yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne ko digalal sa waa kër ñuy julli te bul yem ci benn mbaa ñaar da lay jaral nga muñ ci loolu ndax jigéen ñi daa am nu ñu bindoo rawatina waa kër yi wa'mur ahlaka bi salaati wastabir alayha sallallahu alayhi wa sallam nee na koo xam ne daa bokk ca la lay bégloo ëllëg nga dajeg yàlla dib jullit na nga sàmmoonteeg julli juróom yi saa yoo déggee noddu ga abdullah ibnu mas'ud mi ko nettali nee na wa laqad ra'aytunaa wa maa yataxallafu anha illa munaafiqun maalumu nifaaq nun dey ci sunu jamono daawnu gis kenn kuy ruusaanu ci waxtu julli lu may muy naafiq boo xam ne ñépp xam nañ nam naafiq la daa di wax ne daanañu jàppoo nit ñii jàpp ci përëgum ndijooram ñii jàpp ci përëgum càmmoñom muy bërdi bërdi ba dugg ci biir sàppi si ba julli ngir fonk goo xam ne fonk na ko julli jullit bi sama jamono yoo xamee ne yaa ngi taxaw ci kanam suñu borom yàlla subhaanahu wa taala fàtteel sa soxna fàtteel say doom fàtteel li nga am ci alal lépp te xam ne ki la jox doom yi ki la jox alal ji ki la jox mbooleem loo am ci àddina ci kanamam nga taxaw julli mënta rëy ci xelum doomu aadama mbaa xolam lu may daa xam màggaayu julli moo tax ñu bari ñu ngi julli naam waaye ndax ña ngay julli julli gi yàlla bëgg ku ko julli loola mooy wax ji moo tax du ngi gis ci alxuraan mukk yàlla naan wa salli julli mbaa mu naan sallu julli leen déedéet naan wa aqimu sala lay wax taxawal leen julli ndax julli dañ ko war a taxawal am na lu bari lu mu laaj bu ñu delloo ci saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu xool leen ni ñu fonke woon julli almushrikuuna bokkaalikat yàlla yi saxaaba yi dañoo julli ak tusbaar ñu daal di gis ne ñoom day julli fonk nañ ko fonk goo xam ne manoon nañoo posewu ci julli gi benn bett leen dal ci seen kaw ñu daan ne nañ xaar ba takkusaan ndax ñoom am na lu ñuy def loo xam ne ñoom noonu lañ ko waxee am na lu ñuy def loo xam ne moo leen gënal seeni bàyyi gënal leen seeni doom nañ leen xaar ba waxtu woowee ñu dalandoo ci seen kaw yàlla daa di wax yonent yàlla muhammad ne ko wa ida kunta fihim fa aqamta lahum salaa faltaqum taifatum minhum maaka walyaxudu aslihatahum fa ida sajadu falyakunu min waraikum waltati taifatun uxra lam yusallu falyusallu maak ñu daal di farataal julli ragal nga xam ne ñaari sàppe lañ koy def seen sàppe si day ànd ak imaam bu ko jiitee bu jiitee sàppe soosu benn rakka mbooloo ma des ña nga jàkkaarloo ak noonu ya mel na dañuy taxaw mel na dañuy garder mbooloo mi di julli bu sàppe soosee amee benn rakka beru fee di julli seen rakka ba des ñee ñëw daal di ànd ak imam benn rakka ba des maanaam boo xamee ne rakka bu njëkk bi jeex na ñee dañuy beru fee julli seen rakka ba des ndax dañuy wàññi su ko defee daal di taxaw fa seen morom ya taxawoon di leen garde ñoom ñu ñëw ànd ak imam te moo ne day loola jihaad la yàlla lañ koy defal te moo ne waaye ànd ak loola suñu borom yàlla ne bu ngeen demee ba ragal gi tar sax donte da ngeen di daw di julli mbaa ngeen di war ci fas yi di julli na ngeen ko def wa in xiftum fa in xiftum fa rijaalan aw rukubaana loolu la borom bi subhanahu wa taala wax muhammad ibnu waasi kenn la woon ca taabiun yi daana wax ne àddina day gis naa ne dara desutu fi ci bànneex lu may xanaa julli ci mbooloo ma julli dafa neexoon fi moom dara wax ne ànd ak ay bokk yoo bokkal pas-pas ci yàlla ak dem di ca mbooloo ma di julli rek a fi des ci bànneex al imaamu ibnul munkandir daana wax ne àddina ñett fi des ci bànneex mooy qiyaamul layli nit ñi di nelaw nga taxaw julli ci guddi gi ak bokk yoo xam ne yéen a bokk yàlla ak julli ca mbooloo ma amir ibnu abdullah ibnu zubayr moom day mas naa nekk ci sukuraat jagadi lool dégg ak noddu wax mboo doom yi ne leen day julli ji doom yi ne ko bàyyi xanaa xamoo fi nga toll mu daal di leen tontu ne a asma'u nidaa allahi wala ujibu man waxuma fi ma toll waaye li may laaj mooy ndax damay dégg yàlla yi woote te du ma wujji loolu laay laaj daal ne yóbbu leen ma bañ ko yóbboo ca jàkka ja ñaar rakka ca ñaari rakka ba ca la génn àddina ngir lan julli ni mu ko itteele ak jox gu mu ko jox akam anas ibnu malik mi nga xam ne kenn la woon ci saxaaba yonti yàlla muhammad bi mu nekkee ci sukuraat jooy na az-zuhri laaj ko kenn ci ñamu jamonoonteel ne ko waaw looy jooy mu ne ko jooyuma dara mboolem li ma fekkoon yonti yàlla muhammad daan ko def daan ko taxawee lenn dong laa ci xàmmee muy julli li ci des lépp soppi nañ ko te daane julli moomu sax li ci liñ ci soppi lu bëree bëri bëri la salaaw bu fekkee jamono jooja la ko doon wax de kon bu fekkoon suñ jamono ji nga xam ne léegi-léegi nga gis julli kuy julli koo xam ne da ngay werante ba xam ndax day julleem déet maanaam ganaar guy cof nga xam ne rukkoo yi du mat sujjóot ya du mat buy noppi rek daal di delluwaat ca la ko la ko ñor moom la ko ñor lii ñoru ko leneen a ko ñor loolaa tax lii ni mu ko defee ba mu noppee leneen la muy def mbooleem lu nuy def ci àddina nun bu dee ab liggéey bu nuy liggéeyalu dañuy taxaw ka koy def ba mu àggal ba mu rafet ñu soog a xam ne lii jag na lu nuy defal suñu bopp itam dañ koy def ba mu jag waaye lu nuy defal yàlla moom day mel ne lu ca baax rek baax na ku baax mas naa am kum jan lool ci biir jàkka ji di ko xool ba yàgg mu ne ko waaw yow sa julli gi ndax yaa ngi ci yaakaar fi yaaba nii nga jullee nii ku toll na yàlla nga taxaw ci kanamam jullee julli gu doy waar gii ba noppee kat delluwaat ca sa la nga newoon ñenn ña ca portable la ñuy dellu ñenn ca télévision la ñuy dellu ñenn ña ñenn ña ñenn ña ila axiri maa honaali xanaa mbokk yi bàyyiwuñ xel ne kenn ca al ansaar mas naa saraxe ab toolam toolub lëmm mu saraxe ko ngir ne daa julli di xool tool yi ba yàgg maanaam am picc mu ne fër dugg ci beneen geneen garab ne waat fër mu noppi xel mi dellu si xamul ñaata rakaa la am bam noppee daa saraxe tool ba lépp ne dama yàqal ak julli sama diggante ak suñu borom subhanahu wa taala mbokki jullit yi jullit du ay caaxaan moo tax du wàcc jullit bi benn yoon du ko wàcc benn yoon su dee da ngaa mën a taxaw temm nga taxaw temm soo mënta taxaw temm nga toog daal di wéeru soo mënta taxaw temm nga taxaw wéeru soo mënta taxaw temm nga toog bañ a wéeru boo mënta toog wéeru boo mënta toog nga daal di toog wéeru soo ko mënul nga tëdd sax ndijoor mbaa sa càmmooñ mbaa sax nga jaaxaan mbaa sax nga julli ay xef loolu lépp mi ngi ci biir téere lislaam yi loolu li muy tekki mooy julli doonut lu wayef sallallahu alayhi wa sallam mi yàlla yónni woon mu nekkoon ci sunu kanam bu daan julli da ngay dégg dënn bi day riir day mel ne cin luy wañax ci ak ragal yàllaam day mel ne cin luy wañax saxaaba yi noonu lañ ko daan déggee mu mel ne cin cin luy wañax ni cin cin di mel noonu la ndënd dënn bi di mel ndax teewlu gum teewlu yàlla ak màgg ko suñu borom gi subhanahu wa taala moo tax moom yonent yàlla muhammad bu dee rukoo da nga koy dégg muy wax ay kàddu yoo xam ne ak bu dee sujóot da nga yëg ne kii day ku yëg yàlla la allahuma laka rakaat wa bika amant wa bika aslamtu xasha alaka sam'i wa basari wa muxi wa azmi wa asabi wa mastaqalat bihi qadami loolu wax na ko ci ab rukoo yàlla yow dong laay rukool yàlla yow dong laa gëm yàlla ci yow dong laa jébbalu sama dégg yow la toroxlul saab gis yow la toroxlul sama yuur sax yow la toroxlul ak lépp loo xam ne maanaa yanu na ma ma taxaw wa mastaqalla bii xadami bu ma saana suyur nga dégg ko ma naan allahuma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladi xalaqahu wa sawarahu wa shaqa samaahu wa basarahu fa tabaraka allahu ahsanul xaaliqin sahaaba yonti yàlla muhammad am na ca ñoom ku ma sa siggi ci abrukoo daane rabbana walaka alhamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fii milu samawati wa milu l ardi wa milu ma chita min cheyin baad ahlu sanai walmajdi ahaqu ma qaala alabdu wa kulluna laka abdu allahuma la maania li ma atayta wa la muti li ma manaat naka yonti yàlla muhammad salmal daane ana kana wax li ma di gis ay malaaka fanweeri malaaka di ko ñëkkante bëgg koo jox seen yàlla suñu borom yàlla mu ne man maa wax loolu nga xam ne xeetu màggaliin wu nekk boo jëlee sax nga xam ne julli gi man waxuma li ngay wax ci biir julli gi ci wàllu màggaay waaye julli ci boppam rek ni mu bindoo boo xoolee xam ne yàlla rek ko moom ret taxaw fi barab ngir kenn wa quumu lillah qaanitiina taxaw ne ret ci benn barab kenn rek lañ koy defal muy suñu borom subhanahu wa taala jekki ba yàgg nga daal di xaaj sa jëmu ji nga xam sa jëmu sa jëmu ji da nga ko xaaj ci digg bi jàpp say bëti moom loo wax foofa man de màgguma kenn rek màgg subhaana rabbi al azim subhaana rabbi al azim kon al azmatu amul ci man ci yàlla rek la am ba yàgg nga def lu gën a doyati war loo xam ne dara gënu koo doy war lu may xanaa ñu gas nga dugg ci biir muy sujjóot sujjóot mbooleem lu ñuy defal yàlla moo ci gën a rëy sa juróom-ñaari cër yépp daal di wàcc foofee nga jege fa yàlla lool wasjudu waqtarib nga jege fa yàlla lool ba noppi yàlla may la buntub nga man koo ñaan loo soxla waa mbokk yi maa ngi leen di laaj sunu njiiti réew yi ana kan ci ñoom moo mën a may koo xam ne da koo yilif muy gisee ak moom di am ak moom audience ci bis bi maanaa lu mat juróomi yoon amu ci amul kenn koo xam ne tey ka la jiite nekk sa njiitum réew dana la may nga di ko gis mën ngaa dund ba faatu doo ko gis safar benn yoon xoolal yàlla su borom yàlla su borom ak ni mu toll ak ni mu màggee ak ni mu la ñàkk a soxlaale dara ak ni nga ko aaje woo mu may la ngay taxaw ci ci kanamam laa wax ci bis bi juróomi yoon juróomi yoon nga koy taxaw ci kanam su borom subhaanahu wa taala te kat loolu mën nga koy def di ko def di ko def ba xëy am ñeent fukki at te mosoo yëg bànneexu julli lu doy waar a ngi noonu am na ñooñu ñi ngi julli di julli waaye mosuñoo yëg benn yoon foo xam ne yëg nañ fi màggaayu suñu borom ci biiru julli lu tax mooy dañuy yëngatu nii rek dañuy rukkoo nii rek dañuy sujjóot nii rek waaye màgg julli ga ak màgg yàlla tey julli balaa màgg ci yow faaw yàlla màgg ci yow julli du màgg ci nit mukk te màgg yàlla màggut fi moom yàlla day màgg ci xolub doomu aadama mu yëg yàlla loolu moo tax julli gi da koy dimbale ci loolu xoola julli li mu àndal lépp yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na jaam bi bu ne alhamdulillahi rabbil alamin yàlla danaan ko yàlla danaan saa jaam ba sant na ma yaa ngi julli yàllay wax ak yow xamidani abdi saa jaam ba sant na ma loolu la wax bi nga ne alhamdulilahi rabbil alamin nga ne arrahmani rahim mu ne asna alay abdi saa jaam ba tagg na ma nga ne maliki yawmi diin mu ne nag màggal na ma majjadani iyaaka naabudu wa iyaaka nastain mu ne maa ngi yow ko séq lii lenn li yaa ko moom lenn li maa ko moom iyaaka naabudu maa ko moom wa iyaaka nastain yaa ko moom léegi nag mu des nga ñaan ihdina siraatal mustaqim mbokk yi mbokk yi mbokk yi wallahi alladi laa ilaha gayruhu su fekkee ne dañuy wéy di julli ni nuy jullee rek te amul lenn lu soppeeku ci noonu nga xam ne buñ noppee kat la yàlla waxoon ne julli da koy teree def nit muy lu ñaaw ak lu bon bu tee bu ñu sëlmal di ko def kon julliwul inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar la yàlla wax te yàlla lépp lu wax dëgg la nee na julli day dox diggante nit ki lu bon ak lépp lu ñaaw ndegam yaa ngi julli subaa ngoon te téewu lay xool lu bon téewu lay wax lu bon téewu lay def lu bon téewu lay sàcc séewu lay def nangam ak nangam kon julli woo da ngay julli noonu da ngay da ngay jullentu waaye jullen julli woo yàlla na nu yàlla boole ci ñi mën a julli yàlla na nu suñu borom yàlla subhaanahu wa taala boole ci ñi mën a julli yàlla na nu yàlla sa borom subhaanahu wa taala boole ci ñi mën a julli yàlla nañu yàlla nangul lépp loo xam ne jaamu nañ ko ci ak mbaaxam ak yërmandeem wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin